asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, jamono bii ngeen ñi bàyyi xel ci Refane bi euh, ñu ngi ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom mooy Ndiassane Ndiassane nag ñu ko waxee xel yëpp day dem ci tarixa xaadiriya euh, fii ci réew mi di Sénégal euh, xam nga nekk ñoom dañuy def li nga xam ne mooy ngénte euh, ni ki tuyaawoon àllarba bi weesu ak feneen ak feneen ci lañ def li nga xam ne mooy màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dëkk bii di Ndiassane ñoom dañuy def li nga xam ne moom mooy ngénte ni ki suba nag incha allah la ñuy door li nga xam ne moom mooy liggéey bi xam naa rek dañ leen di bàyyi ba ci kanam tuuti rek incha allahu rabbi lépp loo xam ne rek nekk na li leen jëlal ci dëkk bi rek dinañ leen ci ànd ak yéen ci seen euh, site Refane TV. Cheikh Bou Mbaye. Cheikh Bou Mbaye. waaw euh, tey jii euh, buñ leen jaasaan ñoom dañuy ngénte lañ ngeen mën a wax ci loolu tuuti rek. baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammadin sayyidil fariqayn wa imaami saqalayn sayyiduna muhammad wa ala wa sahbihi wa sallim. ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur. waaye di nuyu xalifatul am li tariqatil qadiriya cheikh abou mohammed kunta wuldu cheikh sidou mukhtar wuldu cheikh bou mohammed wuldu cheikh al albunaama mi xalifatul am li tariqatil qadiriya serigne bi nga laajte question bu am solo waaye muy question boo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi suivre refon TV di leen nuyu di leen ziar yàlla dooleel télé bi wala site bi ñu koy dégg fu ne li tax ñu naan ngénte diggante ki nga xamante ne mooy Seydouna Mohamed ndax nit boo juree sa doom danga koo war a waaye nga jur sa doom wala keneen jur nga dem jële xarnaa nga danga koy ngénte amaana dinga am problème waaye ki nga xamante ni mooy ba di maami Cheikh Abou Mohamed Kunta moom ak diggante Seydouna Mohamed juróom-ñaari maam moo ci dox waaye diggante Seydouna Mohamed ak Fihr fukki mam moo ci dox ci leeral ki nga xam ne cheikh bu Mohamed Kunta boo ñëwee ci ki nga xamante ni mooy ki nga xamante ni jur euh, bin bun ibnu Naafi Amir Laqiz Umayya Zarbu Haris, Fihr léegi diggante Oqba ak Fihr juro ñaari mam moo ci dox te dañ ni ku yai samam. la yey sa léegi bo dé xol ki nga xamanténi moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanténi moy li waral li mom bo dé xol dañ nan ko Muhammad ki nga xamanténi moy yonnati bi amnu Malik amnu Nadar amnu kananata amnu khuzaimata amnu Mudrikata amnu Ilyas amnu Mudar amnu Nazar amnu mat amnu adnan kon muy fukki mam yo xamanténi day sorante waye ñu téssé ci ki nga xamanténi moy fihri te dañ ne ku gën a ku la gën a jege sa maam moo waral ngay ngénte sa maam njabootu Njaasaan nag dañoo jege ki nga xamante ne mooy Seyduna Muhammad diggante ba mi nga xamante ne ba mu juddoo dañ koo leew yóbbu ko ci Seyduna Muhammad yonent bi jël lorom wu sellu wa daf ko ci gémmunu Oqba mu ni ñaanalal sa raq ji waaye bu ko waxee njabootam moo tax kon kooku mooy maami kunte yi kooku dafa jege ci yonent bi juróom-ñaari maam moo ci dox kon ku la gën a jege sa maam moo tax ñii ngénte suñu maam di Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax macha allah. li nga xam ne yéen ngi bàyyi xel ba léegi ci seen site euh, internet Refane TV euh, jamono bii nag comme ni leen ko waxee rek ñu ngi si dëkk bu sell bi di Ndiassane euh, Ndiassane nag di dëkk boo xam ne macha allah buñ ne tarixa xaadiriya fii si réew mi di Sénégal xel yëpp fii la jëm dinañ leen si jukkil nekk tuuti rek li nga xam ne mooy cosaanal dëkk bi ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bounana Kunta nga xam ne moom moo créé li nga xam ne mooy tarixa xaadiriya fii si Sénégal bala moo nga xam ne boobu dafa dafa benn dëkk boo xamante ne mi ngi tudd ndànk en 1800 euh, bala moo nekk fi nga xam ne moom mooy Ndiassane bi nga xam ne mi ngi ko créé maanaam mi ngi ko sos en 1883 loolu nag ñi ngi ko jëlee ci ki nga xam ne mooy Serigne Sidi Mokhtar Kunta Cheikh Bounana ñu gën ko xam si Serigne Cheikh Ahmed euh, donc mu doon euh, koo xamante ne mi ngi judd si en 1780. fa nga xamante ne mooy euh, axla bi nekk fa nga xam ne moom mooy Algérie moom mi nga xamante ne dañ ko yóbbu woon mu jàngal li nga xam ne mooy alxuraanul karim waaye jàngal li nga xam ne mooy sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nekk nga xam ne euh, am na lu bari loo xam ne def na ko ci tarixa bi waaye nekk euh, dëkk bi nga xam ne mooy ndànk nga xam ne moom mooy léppam nga xam ne lu bëri fa la ko doon defee macha allah ba tey jii nga xamante ne nek mën nañ ne ah boo ñëwee ci Njaasaan di nga xam ne nag dëkk bi dëkku diine la dëkk bi ñoom ñi nga xam ne dañuy wax surtout Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam direct la ñu mën nañ jàpp ne loolu lu wér la parce que buñ ne ahli kunti yi ne bani xurayshi euh, nga xam ne fa la ñu bokk wallaay nga xam ne dëgg dëgg dëgg li nga xam ne nekk moom mooy tarixa xaadriya fii si Sénégal nekk na tarixa boo xamante ne diine la ñuy dundee diine moom moo nekk si li nga xamante ne moom mooy seen mbir li nga xam ne nekk mooy xalifa bi jamono bi di Cheikh euh, bu Kunta ñu koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla taxawu baax ci barke Seydina Seydina Mohamed lepp lo information gi ci ak ci site TV voilà chers téléspectateurs qui nous suivez sur votre chaîne Refan TV actuellement nous sommes dans la ville saint Ndiassane euh, un peu de l'historique pour cette ville Cheikh Bounana Kunta le fondateur de la tariqa Khadria au Sénégal a érigé d'abord le village de Nank en 1800, avant de s'installer plus tard à Ndiassan, qu'il fonda en 1883. Rebelle Serine Cheikh Sidi Mokhtar Kunta. Cheikh Bounana, connu sous le nom de Serine Sidi Ahmed, est, selon Cheikh Bounana, né en 1780 à en Algérie, avait été envoyé par son maître, le réformateur de la Tariqa Khadria, Cheikh Sidi Makhtar Kunta, afin d'aider à la Tariqa à l'expansion de l'islam et à l'implantation de la Tariqa Khadria en Afrique de l'Ouest, rappelle le porte-parole du calife de un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, précise le porte-parole du calife de Nank, il était installé à Nank pour les besoins d'une retraite spirituelle avant d'aller fonder Ndiassan où il restera jusqu'à son rappel à Dieu. Rappel sur une Cheikh mohtar Kunta, Cheikh Bounana, un descendant de Bani Khouraïch de la Mecque. Ce qui détiennent les clefs de deux saintes mosquées est reconnu comme un savant, un saint homme. révèle Serine Cheikh Sidi Mokhtar Kunta. Étant le plus âgé des petits-fils de Mambou, Mamadou Kunta, dirige aujourd'hui le Khalifa des Ahlou du Sénégal, de l'Afrique et de la diaspora. Le Khalife général des Khadr, de Ndiassan, Mambou, de Ndiassan initié par son grand-père, le fondateur de la cité religieuse Mambounana Kunta en 1803. À sa disparition, présiste-t-il Cheikhna Cheikh Bekay Kunta qui héritera du calife qu'il dirigera pendant 15 ans. Il est remplacé par Cheikh Sidi Lamine Kunta dont le règne durera 44 ans. Le calife de confie que ce fut ensuite autour de son propre père. De son propre père. De préciser aux destinées de la avant de passer le témoin à Serin Sidi Yahya Kunta qui restera 11 ans, 6 mois à la tête du Khalifa. Après lui, la charge est revenue à Baye Bou le dernier fils de Mambounana Kunta qui dirige le Tariqa durant 15 ans, avant de céder la place au plus âgé des petits-fils de Mambou Kunta, raconte encore le calife. Actuellement, l'actuel calife de la Tariqa Khadija au Sénégal son nom, euh, Cheikh Bound Kunta, qu'on souhaite un bon euh, vie, que Dieu l'assiste dans ce qu'il est en train de faire Vraiment, vous nous suivez actuellement sur Réfan TV. On est fiers. Donc, on vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour d'autres euh, choses qui se passent aussi euh, dans cette ville sainte.